mesdames et messieurs maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkale di leen merci di am mbégte lool si merci beaucoup merci ah, xam naa ni comme yàlla def na amoon na traduction simultanée li ñu doon wax yëpp amoon na traduction bi kon du laaj may baamtuwaat ci wolof li ma fi wax yépp waaye mënuma bañ a tënk ñaari mbir bi ci jiitu mooy su ma ñëwee fii tey ak film bi ñu seet suñu xool dafa tooy ndax ki nga xam ne yàlla def na moom lañ njëkkoon tànn mu jiite kuréel gi muy président Ousmane Tanor Dieng tey jii mu ngi ci dëgg ñaan yàlla subhaanahu wa mu xare ko ci àjjana yi gën a kawe ñoo am ay xalaat itam ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci mbir mi suñu borom jëlee leen fii ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla ah, may fàttali nii kuréel gi dafa am solo ci démocratie Sénégal nag dafay réew moo xam ne comme réewu liberté la ak démocratie lu neex waaye mën na wax loolu mooy wax sa xalaat lu ne loo ci xalaat waa ji ñu nekk di wax di wax ba géex parce que réew jàmm la moo waral loolu réew jàmm la yal na jàmm jooju yàgg kum neex nga ne au conseil amul njëriñ kum neex nga ne guvernement amul njëriñ kum neex nga ne dara amul njëriñ bon loolu nit ki am na ci liberté waaye ci ni kuréel yi doxee institution yi ci référendum askanu Sénégal souverainement voté à 63 pour cent ak lu topp taxawal au conseil des collectivité ak yeneen i mesures yu ñu jëloon ci référendum 2016 kon yéen légitimité mbir mi kenn mënu ko kenn mënu ko remettre en cause xanaa nga demaat référendum ñu xoolal ndax beneen xalaat dana ko wut ñaareel bi ginnaaw kuréel yi bi ci jiitu mooy président la république moom la ñëpp di fal mu jiite réew mi seq institution yi moom moo yor vision bi ñu doxalee réew mi parce que moom lañu dënk ci diir bi ñu koy teg ah, doxalinu réew mi waaye bu ko xalaatee ba pare gouvernement bi moo koy doxal mais ci wetu gouvernement bi gis nañu importance su assemblée nationale ndax moom moo yor contrôle di doxal bi bi gouvernement bi di doxal moom mooy wote loi yi moom mooy évaluer politique publique mais ginnaaw ñaar yooyu ginnaaw donc assemblée ak gouvernement am nañu au conseil des collectivités parce que Sénégal dafa jël décentralisation jox ko gëdd maanaam population yi fi ñu nekk ci gox yi ak gox goxaan yi ñu nekk Ndakaaru mënuñ toppatoo seeni mbir donc faw ñu taxawal ay kuréel muy ay mairie muy conseil départemental ëllëg xëy na ñu def ay li ñu tuddee euh, des territoires euh, mbir ma nu mu tuddati ci acte deux bi des pôles territoires maanaam jël ay région boole leen lu mel nu Sine Saloum lu mel nu Sénégal oriental et cetera mel nu Casamance ngir ñu gën a transférer loo xam ne gouvernement moo ko doon def lu mel nu ay piste de production yoon yi jaar ci kaw gi lu mel nu mbéy mi lu mel ni et cetera et cetera secteur yooyu yëpp mën nañ ko transférer progressivement waaye ci kaw ñu ñu koy jox xam ne kat dañ leen a dënk ay compétence ci biir réew moo xam ne benn réew la waaye du ku nekk lañ la dënk nga jàpp ne yow buur nga fa nga nekk di doxal loo xam ne mën na indi tasaaroo ci réew loolu itam dafay am sol kon xalaat yooyu dañu ko dënk au conseil des collectivités territoriales mu ci saytu ndax ni ñu bindee au conseil bi dafa am des élus ñi nga xam ne dañ leen fal ci seeni gox en tant que conseillers municipaux conseillers départementaux wala ay maire wala ay président de conseil départemental am ñoo fi gën a bari ñooñu ñu boole leen ak ñeneen ñu nga xam ne dañ leen nome ci seen capacité politique seen capacité environnementale seen capacité ci wàllu xam-xam ci wàllu droit ak yeneen i domaines yoo xam ne am na solo ci développement local kon yéen a war a saytu di xalaatal njiitu réew mi nga xam ne mooy taxawal politique réew boole ci loi bi wax ni lépp luy loi bu ñuy def bu jëm ci décentralisation faaw ñu sàkku seen avis xam au conseil bi nu mu ko gisee donc loolu nag du rek ay mbiru politique wala bon man damay nekk au conseil takk drapeau soo génnee comme sama mbokk mi jógee Ranérou ah gis nga ko tey moom ngaari mawoon di nga am na au conseil bu doy <laughs> kii donc loolu dafa am solo rôle bi maanaam rôle bi ñuy xaar ci yéen dafay rôle buy nas ay xalaat di nas ay xalaat di taataan ay xalaat segg ko ba pare nañu kat ci lii lii lañ jàpp ne mooy li gën ci doxalinu réew mi en matière de décentralisation wala de développement communautaire à la base kon loolu dafa am solo parce que gouvernement amul jot parce que gouvernement bés bu xëyee si urgence lay nekk bés bu xëyee mu ngi daw mu ngi gérer tension yi mu ngi gérer grève yi mu ngi gérer ñiy marche mu ngi donc mënul am temps toujours di am recul waaye au conseil wala conseil économique social et environnemental seen rôle mooy di xalaat di joxe dafa am solo moo tax loolu itam boo koy dënk da koy dënk d'abord nit ñu teey nit ñu dal ñoo xam ni xam nañ tam li ñu leen dënk lu mu doon ak fan la tàmbale ak fan la yem parce que tam réew mi loolu ku ne dafa am pàcc bu ñu la daggal boo yemee si sa pàcc rek bu ñu boolee lépp dana dox donc loolu may santaat na Aminata Mbengue Ndiaye coow li bari woon na ah waaw xanaa comme dañuy changer parce que Sénégal loolu la bu ñu jàppee ne place xaw na libre rek candidature yi day bëri coow li bëri manipulation yi bari mais loolu yëpp bañ a gëm yàlla la rek ndax yàlla li muy dogal dogal na ko ba pare li muy dogal moom dogal na ko ba pare tey nag nit ki boo leen àndee nga jàpp ne xëy na am na dog-dog kan moo dul feebar si àdduna xam nit ki am tawat lu tuuti kay da nga koy ñaanal yàlla am dal ñaanal ko mu dellu ci en forme te lii daf ko mérité Aminata Mbengue ndax loyautéem d'abord ci parti bi mu bokk ba jiite ko tey bu muñuloon xam ngeen ne moo Sénégal jigéen bu jiite parti bu toll nu parti socialiste boo amul capacité mënu nekk kooku aj wax depuis Ngalandu temps ak Lamine Gueye et sociaux jamono xam naa dinaa la woowaat ñu toog nga waxal ma jaar-jaaru parti socialiste kon kon kooku bu ko yàlla indee ba fii euh, wax dëgg yàlla muy mu doxal tam au conseil ba ñu yàlla indiwaat ñu fii kon dama koy renouveler confiance ma ne ko Aminata doxalal yal na la yàlla jàppale ngeen jàppale ko ngeen jàppale ko ma jàppale leen en tant que président de la république gouvernement bi jàppale leen pour seen liggéey dëgër seen liggéey dox may ñaan premier ministre aussi lii ñu def ak monsieur le président de l'assemblée nationale moom aussi di nit ku baax ku du baax ma leen di ñaan parce que assemblée aussi day jot seeni avis ñu jéem ko exploiter la façon la plus judicieuse pour gën a renforcer suñu politique de décentralisation kon ci kàddu yooyu rek lay yem di leen ñaanal nag yéen itam yàlla jàppale leen ngeen muruloo ko yàlla taxawu leen bu baax ci mission bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam